xam-xam rek kay def di soppi bu baax di leen ziar euh, di kontaan di àndaat ak yéen seen émission bu ñuy wax droit en wolof fas seen dikkaat génn ci thème bu bees thème mu tey bi nag bon ñu ngi ko jagleel suñu mbokku travailleurs yi nga xamante ne ñooy liggéeykat yi pour jéem waxtaan ak ñu un peu ci li ñuy wax euh, sécurité sociale sécurité sociale nag boo leen ko déggee comme tur bi ñu koy comme tur bi rek sécurité la loo xamante ne dañ ko prévoir yoon da ko prévoir nga xamante ne liggéeykat bi suy liggéey. comme dafa exposé ci ay risques parce que nit buy liggéey mën na am accident de travail danañ ko aussi boo nekkee ci yenn métiers yi aussi mën nga am yenn maladie yoo xamante ni ci sa bërëbu liggéeykaay lay jógee li koy wax maladie professionnelle léegi ci risques yooyu nag ci la yoon taal di teg euh, yenn yi nga xamante ni euh, ay jumtukaay la nga xamante ni. Euh, travailleur bi dinañ ko mën a assurer pour en loolu bu ko dalee parce que protection sociale dafa prévoir nit ki nga xam ne dafa war a benn revenu benn tuuti as loo xamante ne war na ko mën a yor pour mën a def dundam normalement loo xamante ne mënut a ñàkk ci dund nit ki pour mu mën a dund convenablement pour mu dund de manière décente ci kaw loolu nag ci la ñuy prévoir sécurité sociale mais ñu nag suñu sécurité sociale normalement comme protection sociale donc comme ça concerne tout le monde mais la sécurité sociale est juste euh, yi nga xamante ne mooy liggéeykat yi mais surtout liggéeykat yi nga xamante ne ñoo nekk ci privé bi te ci ñooñu ñuy waxtaan parce que am na beneen sécurité sociale aussi bi nga moo fi nekk pour les fonctionnaires nga xamante moo nekk moo xamante ni moom fonds national de retraite FNR nga xamante ni au niveau du trésor la nekk ñoom ñoo koy gérer mais nga xamante ni moo jëm ci wàllum fonctionnaires yi mais tey ñun dañuy wax uniquement bi nga xamante ni moo jëm ci wàllu travailleur du secteur privé ñu koy wax sécurité sociale. ci foofu nag comme ni ma ko waxee sànq am na ay risque yoo xamante ni moo tax ñu def comme ay maladie professionnelle wala aussi bu dee jigéen la maternité parce que jigéen buy liggéey aussi mun na jékki-jékki mu am feebar wala mu jékki-jékki mu ëmb. loolu tamit dafa am yoon bi nga xamante ni protection parce que période en état de grossesse te liggéeyu aussi yoon dafa war te yooyu aussi boo leen xoolee ñu ngi ko gérer ñan ñoo gérer yooyu prestation ak affiliation yi muy demee ci lañ bëgg ñëw ak yéen léegi léegi j' espère que dina leen amal parce que travail dañ ko war a affilier bu ñu ko affilier moom nan la war a def ba xam ne affilier dañ ko def a bu ñu ko affilier aussi cotisation nan lay demee ci institution yi ba nga xamante ne moom en bu nekkee ci risque yooyu ba xam ne dañ ko mën a couvrir wala dañ ko jël en charge moom ñu jël ko en charge moom jabaram ak ay doomam. ci loolu la ñuy waxtaan ak yéen générique bi léegi léegi ñëw si jéem. lu musul am moo tax du jóg ci di soppi dunia waaw jóg sàkku xam-xam wala dox jóg gi xam-xam dafa dem ba mujj tuumu ci sa. voilà comme niñ ko waxtaanee léegi léegi si yéen di wax ne leen tey waxtaan ak sécurité euh, sociale les travailleurs. parce que sécurité sociale bi dafa waroon couvrir képp koo xamante ni liggéeykat nga mais comme Sénégal dafa nekk dëkk boo xamante ni ñuy yëngu ci informel bi secteur informel bi dafa xaw a bëri moo peut-être mën nañoo couvrir mën nañoo couvrir lu bari mais ñëpp képp koo xamante ni liggéeykat nga da nga war a am sécurité sociale loolu la ñuy prévoir parce que bépp koo xamante ni yaa ngi liggéey da nga exposé ci ay risques boo risque mooy da nga ay charge par exemple nit ki. boo commencé liggéey mu ngi dikk-dikk amul jabar am ay doom yëpp ay charge la te charge yooyu yëpp yoon dafa prévoir dañ ko war a jël en compte pour permettre nit ki mu dund normalement moom ak famille mais comme Sénégal secteur informel dafa bëri ba tax na travailleurs yu bëri couvrir ñu leen donc sécurité sociale bi nga xamante ni dañuy waxtaan ak yéen mooy souvent mooy ñu nga xam ne dañuy nekk si privé bi mais formel maanaam ci entreprise yi entreprise yi nga xamante ni yoon xam na leen yoon reconnaître na leen parce que boo nekkee bi amoo koy déclaré wu état bi xamu la donc ñi nga xamante ni xam yoon xam na leen donc sécurité sociale boobu la ñuy wax ñi nga xamante ni ñuy travail yi nga xam ñuy liggéey ci entreprise yooyu. sécurité sociale boobu nag ñen ñoo koy gérer Sénégal am na ñetti institution yoo xamante ni ñooy gérer sécurité sociale boobu bu si njëkk mi ñu koy wax caisse de sécurité sociale bu xamante ni ñëpp peut-être dégg nañ ko mais peut-être xamuñu exactement lan lay def. bi ci topp mooy IPRES IPRES moom ñëpp yëg nañ ko ñëpp xam nañ ko moom mi nga xamante ne moom mooy gérer retraite personnes âgées yi ak bi ñuy wax IPM mooy institution de prévoyance maladie maanaam mbiru feebar parce que nañ ci ñëw parce que moom nekk na loo xamante ni nit ñi peut-être xamuñu ko lu bëri te c'est obligatoire te yoon dafa wax ne da ko war parce que travail bi di ma wax sànq comme dafay exposé ci yenn feebar yi yoon dafa prévoir nga euh, jël ko en charge bi ñu njëkkee mooy caisse sécurité sociale. en matière de euh, affaire de sécurité sociale maanaam travailleur euh, Sénégal dafa ratifier convention wu OIT benn jumtuwaay la boo xamante ni organisation internationale du travail moo ko teg pour képp ki nga xamante ni pour képp ki nga xamante ni yow da ngay yëngu euh, bépp état boo xamante ni ratifier nga convention bi ratifier nga ba jumtukaay boobu bànqaas boobu moom da nga am loo xamante ne le minimum daf la warloo ak say liggéeykat mooy da nga leen war a protéger ci ay neuf branches neuf yi nga xamante ni ñoom prévoir nañ ko nii bépp état mën nga couvrir risque yooyu par exemple ci benn chômage wala nit ki nekk invalide ñu defal ko ay prestation prestations d'invalidité maanaam nit ñi nga xamante ni peut-être. Euh, seen cër matul ba ñu mën a def yenn liggéey wala mënuñu def benn liggéey aussi ñooñu dañ leen war a benn prise en charge dañoo bàyyi état bu nekk en fonction mu mën-mënam ak niveau de développement mu xool ci bu ko neex mu def ko mais l'essentiel au moins dina jël ñett ñett risque yoo xamante ne def ko war a couvrir par la force euh, loolu it lañu wax ni état bi minimum buy ratifié dina jël ñett si yoon ci état wu Sénégal nag ba muy ratifié jël na ñett parce que état Sénégal amul doole boo xamante ne mën na jël neuf risques yooyu par exemple comme chômage tey am na dëkk yoo xam ne dañoo ratifié risque chômage maanaam nit ki bu doon liggéey dem ba si biir liggéeyatul war nañ ko mën a jël en charge di ko fay ay parce que boo nekkee chômage da nga am ay charge da am ay risque yooyu si biir comme sécurité sociale pour la sécuriser risque yooyu dañ la war a jël en charge le temps ñu amal liggéey mais Sénégal amuñu moyens yooyu am na dëkk yu am mais amu fi donc Sénégal dafa ratifié bu muy ratifié convention 102 mu jël ñett. ñett mu jël mooy dafa jël branche maternité comme non sànq femme enceinte jigéen bi nga xamante ni dafa war na ci liggéey bu nekkee état boobu nan nañ koy protéger nan nañ koy assurer ba xamante ni période boobu mu liggéeyul nañ ko mën a jël en charge ak doom toppatoo ko. beneen bi mooy Sénégal aussi dafa dem ratifier bi ñuy wax accident de travail ak maladie professionnelle maanaam travailleur bi nga xamante ni dafa def accident de travail wala mu feebar ci ñi nga xamante ni ci liggéeyam lay jógee. kooku tam dañ koy jël en charge ak beneen bu ñu wax les prestations familiales maanaam prestation yi nga xamante ni nit ki kuy liggéey soit ku góor la ko jigéen moom dina ko am en fonction charge familiale en fonction am na jabar wala am na yi doom charge yooyu noonu si euh, du koy jël en charge donc ñetti branches yooyu la Sénégal ratifié te ñetti branches yooyu yëpp boo leen xoolee Sénégal IPRES ki ma koy gérer caisse de sécurité sociale moom nag moom mi nga xamante mooy gérer kii bi travailleur dañ ko fa war a affilier maanaam bépp travailleur boo xamante ni yaa ngi liggéey ci entreprise wala foo mënti liggéeyee nanga fexe ba wax sa employeur mu affilier la caisse de sécurité sociale. parce que caisse de sécurité sociale mooy tax nga mën a am couverture boobu noonu une fois bu la risque yooyu dalee par exemple tey nga nekk ku jigéen koo xamante ni yaa ngi liggéey ci benn entreprise ñu affilier wuñ la kenn affilier wu la par exemple kenn inscrire wu la ca caisse ba sécurité sociale. une fois boo nekkee état de grossesse nga enceinte période bi nga xam ne te yaa ngi toog liggéeyoo ko bu fekkee sa employeur amul xel bu rafet parce que dans ce amul loi bu ko obligé bu fekkee infidèles cas di nga toog période boobu yëpp doo am salaire alors que bu fekkee dañ laa affilié ci sécurité sociale di la cotiser normalement dinañ ci ñëw léegi ci cotisation yi di la cotiser dans ce cas boo nekkee ci période boobu boo nekkee si état boobu noonu. caisse de sécurité sociale une fois am na déclaration bi moo lay jël en charge dina la jël en charge par rapport ak say visite prénatale incha institution benn par benn laay jël wax leen prestation bi def mais au la jël ay visite prénatale pour sa doom visite yi nga war a def boo demee ba accoucher dina la jël en charge mais aussi tamit boo demee ba après boo demee ba mucc aussi am na yenn visite yi nga xam ne neex kii pour sa doom te aussi am na yeneen yoo xamante ne du point de vue en nature ay yenn alimentation yi caisse de sécurité sociale mën na la ko jox pour sa doom mu jël la en charge mais bu fekkee affilié wu leen yooyu ko mën a doo ko mën donc affilié mais aussi xam ne l' affiliation aussi si caisse de sécurité sociale c' est obligatoire bépp entre travailleur bu ñu jël xamal ni sa employeur sa chef force daf la war a inscrire caisse de sécurité sociale su ko defee bu la neexee mën nga dem ci yoon nga dem inspection du travail bu la gën sa fee boobu noonu beneen parfois dañ leen wax ne leen inscrire nañ leen sécurité sociale dëgg la mais kenn verser leen travailleur bi c'est pas à lui mu leer te wax ay di liggéey ndax verser nañ ko wala verser nañ ko mais l'essentiel travailleur bi moom a xam position ndax indi verser bu ko neexee mu dem caisse de sécurité sociale mu jël numéro bi nga xamante ni employeur am ou bien chef jox na ko ni ko affilié naa la caisse parce que bu la waxee affilié naa la maa ngi lay verser dafa war a jox numéro parce que am numéro de matriculation boo xamante ni yaa numéro bu la neexee nga jël ko nga dem keesu sécurité sociale bu la gën a jege parce que caisse unique la bu dee affaire u sécurité sociale caisse unique la en matière d' accident travail maladie professionnelle prestation et maternité yooyu benn caisse boo ko sécurité sociale am na bépp ay jumtukaay fépp ci au niveau national ci région am na fa boo demee boo ko joxee numéro bi mu vérifier la exactement yow inscrire nañ la te c'est exactement li lay ko def employeur moo koy maanaam entreprise moo lay cotiser yow doo cotiser te foofu maanaam dañ lay assurer pour que en cas boo amee maladie professionnelle wala accident de travail pour ay prestation familiales ak euh, pour maternité parce que ñetti branches yooyu yëpp caisse de sécurité sociale moo koy gérer te Sénégal moom la ratifié donc foofu donc de ce fait même aussi boo amee accident de travail caisse moo la war a jël en charge le temps que ngay guérir après incha allah rabi dinañ def benn émission boo xamante ne ci caisse de sécurité sociale kase lay li muy def bëri na. ci côté maternité ci côté accident de travail ak maladie professionnelle aussi bu fekkee feebar bi nga am ci ci ngay ci liggéeyukaay nga ko jëlee lu ñuy wax maladie professionnelle am na benn tableau boo xamante ni chaque année ou bien bon depuis 2011 c'est le ministre de la santé et le ministre du travail ñoo ko jël par arrêté wax ni bépp xeetu jàngoro yi yi la ñuy considéré comme maladie professionnelle képp ko am maladie professionnelle nga am boo ko amee boo demee kees kees bu fekkee dañ tout ça ce sont des maladies professionnelles incha allah dinañ ci ñëw wax leen kees en cas de maladie professionnelle aussi yan prestation lay def en cas d' accident de travail mais essentiel mooy travailleur bi dañ ko war a affilier foofu c' a affilier caisse de sécurité na bépp travailleur bu am contrat de travail na veille à que bu ñu ko dem dénoncer ci employeur yi ni ko affilier gooma il faut cotiser moom pour ma am assurance parce que genre assurance la pour en cas bu la assurance la pour en cas bu la accident travail yoote wala maladie professionnelle wala bu fekkee ku dee jigéen bi day liggéey bu fekkee en état de grossesse la nekk bu fekkee góor ki aussi da koy assuré pour des prestation familiales maanaam am nay charge en pour enfant donte montant yi bëreegul loolu mais au moins dina ko permettre mu mën a am yenn yenn prise en charge yi pour en matière de sécurité sociale pour en cas bu risque yooyu amee donc bépp dañ ko war a affilier obligatoirement bu dee yow employeur yaa ngi may déglu xamal ni travailleur boo am da ko war a affilier caisse de sécurité sociale. cotisation yi méttiwul c'est une cotisation entre un pour cent 3 pour cent et 5 pour cent pourquoi parce que en fonction astafurla euh, astafurla euh, cotisation yi cotisation yi simple la accident de travail très bien moom évolution boobu moo am 3 5 et 7 pour cent en fonction. de la dangerosité fu muy liggéey en fonction métier bi ñu def dangerosité bi cotisation accident de travail maladie professionnelle mooy varie entre trois cinq ak euh, sept pour cent plafond de soixante trois mille francs cotisation yi méttiwul yow bu dee yow tey employeur mais le travailleur ne cotise au niveau de la caisse de sécurité sociale de ce fait travailleur aussi moom it mënul dem foofu di laajte ay remboursement de frais parce que remboursement pour en cas par exemple nga ne année bi feebaruma ci année bi def ma si accident de travail nañ ma remboursé lu ma cotisé loolu mënul am caisse de sécurité sociale parce que logique d' la dañ lay assuré année bi bu fekkee année bi am na loolu daal ñu jël en charge bu la fekkee dara daal loolu aussi xamal sa cotisation la régime de solidarité donc peut être am na keneen koo xamante feebaroon na moom wala soxla woon nekkoon accident de travail moom lañ ciy jël en en charge parce que loolu ñu dañ ko war affiliés à l'IPES. Aujourd'hui, évolution am na ba caisse de sécurité sociale ak IPES guichet unique la maanaam benn caisse la en quelque sorte léegi benn numéro numéro caisse de sécurité sociale mooy sa numéro IPES en quelque moo am léegi. des na bu ñu joxee sa numéro caisse de sécurité sociale sa numéro IPES di mën a xam même boo demee si institution de sécurité sociale maanaam caisse de sécurité sociale boo fa demee sax di ndax ñu ngi lay cotiser caisse de sécurité sociale mën c' est la même boo demee IPRES pour nga vérifier yoo xam ne maintenant IPRES tax mu am solo mooy IPRES pour la retraite moom moo lay gérer boo retraité mu mun la jox pension de retraite am na yeneen prestation yu muy def ay prestation de survivant ak ay retraite anticipée incha allah moom dañuy jël émission wax directement ci IPRES lu muy def mais boo leen demee IPRES aussi c' est la même chose dañ la war a cotiser travail bi dafa war a dem ci bu fekkee affilié ko IPRES mën ko yóbbu ma IPRES nga cotisation yi du employeur kese yow ak travailleur bi yéen cotiser employeur day cotiser travailleur cotiser yéen ñaar ñëpp da ngeen di da ngeen di cotiser c'est réparti entre deux mais cotisation yi c'est pour le travailleur pour que encore travailleur bi bu ba nekk à l'âge de la retraite mu mën a am pension bu fekkee dem na ba nekk âge de la retraite aussi te amul nombre de points parce que IPRES pour nga am pension de retraite il faut nga am 1000 points il faut nga cotiser au moins lu mu dee dee benn 10 ans wala 15 ans incha allah dinañ ci revenir ci IPRES boo xam ne IPRES kese buñ la cotiser lee pendant durée boobu noonu la jàpp ne am nga pension de retraite bu ko defee chaque mois léegi ñu fay la pension parce que la pension léegi mensualisé nañ ko Macky Sall bon def na ay effort foofu léegi pension au lieu de chaque 3 mois léegi chaque mois da ngay am pension de retraite bu fekkee matal nga nombre de points qui est de 1000 1000 points maanaam équivalence équivalence bi cotisation 15 ans ou bien 10 ans tant si ñëwaat bu soobee ci loolu a travail dañ ko war a affilier aussi IPRES bu fekkee affilier wuñ ko IPRES mën na ñëw mu dénoncé ko si employeur ni ko na la mu lay cotiser su ko deful le travailleur aussi dafa war a dem di xool ou bien ko wax délégué koy xool parce que am na employeur yoo aussi dañ da ngay cotiser mais duñ ko verser IPRES nakate donc de ce fait parfois mu ngi dem ba nekk retraite dem ba retraité jotoo pension bu commencé am problème dèjà toog di ko vérifier di ko topp. maanaam di yéeg di wàcc pour li jënd kayit mën a jot sa pension retraite dafa fekk buy liggéey na ci bàyyi xel mu vigilant mu xool numéro immatriculation employeur jox ko mu dem ba caisse wala mu dem ba IPRES mu joxe ni vérifier leen ma instant exactement ñu may verser samay cotisation normale bu fekkee cotisation ñu ngi koy verser normal xëy bu ko verser wul normal aussi travailleur bu ko neexee mu def mais l'essentiel na ko IPRES xam travailleur bi yoon mayu ko ay jumtukaay mayu ko ay pouvoir yu tax mën a dem wax employeur bi ne ko cotiser force ou bien na verse cotisation yi mais IPRES ak caisse de sécurité sociale ñoom yoon may na leen ay jumtukaay loi bi may na leen ay doole boo xamante ni ñoom mën nañoo dem par force ci entreprise bi une fois que ñu xam ne travailleur bi déclaré nañ ko fii ñu dem ci entreprise bi nangu cotisation yi par force ñoo verser la ko travailleur bi donc yooyu dafa nekk ay jumtukaay yoo xam ne il faut ko baax na travailleur yi xam ko ce n'est pas yow yaa war a dem cotisation mais boo ko xamee ba déclaré ko IPRES wala caisse ñoom mën nañoo jël seen yi parce que ñoom yoon may na leen ay moyens ay jumtukaay yoo xam ne am na fu ñuy jaar ba employeur dina bu daggoon say cotisation dina ko verser si wala bu la cotiser lu woon tamit dina ko verser si bu fekkee tardé na sa presque mën na ko teg ay daan teg ko ay sanction ba mu ñëw cotiser leen yéen travailleur bu ko defee seen retraite ngeen mën ko préparer ci normal te retraite c'est obligatoire aussi affiliation caisse c'est obligatoire appli affiliation UPS c'est obligatoire numéro boo ci am léegi kees guichet unique la buñ la joxee sa numéro de sécurité sociale sax lañ koy tuddee nii buñ la ko joxee boo demee kees mën nga xam ba xam versé nañ la kees ak boo demee IPRES mën nga xam versé nañ la kees ak IPRES aussi. caisse de sécurité sociale foofu travailleur du cotiser de ce fait foofu amul looy réclamer mais il faut nga veiller à ce que ñu cotiser la wala kees xam ni travail bi déclaré bu ko déclaré après maintenant su ñëwee su ñëwul pour IPRES IPRES une fois nga am loolu la yoon prévoir xaw ma nag IPRES lu muy def mais loolu la yoon prévoir que bu fekkee cotisation yi ñëwul c' est à l'IPRES d' aller prendre les cotisations moom moo koy jël yow travail sur na aussi l' maanaam ñu inscrire la IPRES wala ñu inscrire la caisse de sécurité sociale bu ko defee boo retraité mën na la caisse de sécurité moom pour en boo defee accident de travail wala maladie professionnelle wax naa la ko accident de travail moom accident boo xam ne maladie professionnelle dinañ ci def vidéo aussi bu soobee yàlla leeral leen yooyu aussi maladie professionnelle bi nga xamante ni aussi arrêté ministre de la santé ak ministre du travail ñoo ko bind ni xeetu jàngoro yi ku ko am maladie professionnelle la bu la dalee aussi ñu xam ne maladie professionnelle boo demee ci kees mu mun la jël en charge suñu mu ne moom lañ prévoir suñuy defaat émission bu soobee yàlla dinañ ci ñëw wax leen kees lii lay def def beneen émission wax leen ci presse bi ku nekk prestation yi nga xamante ni mën na la ko bu ñu liggéey si ñaari affiliation yoo xam ne c'est obligatoire am na affiliation aussi boo xam ne c'est obligatoire mais les employeurs nag surtout tra euh, euh, chef d'entreprise ñoom yaakaar ne c'est pas obligatoire mais c'est obligatoire la jàpp ni la loi fait que obligatoire boo ko deful bu yoon ñëwee dafay mën na daal sa kaw mooy mooy IPM mooy assurance maladie parce que gars yi dañ naan parce que dama précision bi dafa baax parce que dégg ngeen sànq ba tey mooy wax maladie professionnelle mooy maladie nga xamante ne da nga ko am ci sa. jàpp nañ ni mi ngi jugee ci arrêté bi nga xamante ni moom la ministre du travail Aminata Assane teg ñu xam ne jàngoro ku ko am si liggéey ko ak ko jëlee donc ñu jëlee en charge donc maladie boobu bépp maladie boo xamante ne bokkul ci arrêté boobu noonu du maladie professionnelle de ce fait boo demee kees kees du la jël en charge boo ci feebaree du la jël en charge parce que bu dee maladie professionnelle la wala bu nekk yeneen par exemple prestation de famille ak yooyu noonu wala accident de travail affaire yooyu yëpp maladie yooyu professionnelle kees mën na jël ba jël say ascendant yi descendant maintenant boo ñëwee ci IPM IPM mooy maladie non professionnelle maanaam maladie boo xamante ni nekkul sa liggéeyukaay parce que nit ki aussi mën nga feebar te jëlewu ko sa liggéeyukaay wala mu fu mënti xool mu gis ñu koy xool cotisation caisse ak IPRES bàyyi IPM la dem si employeur mën ko mën cotiser loo mën te dafa war a comme feebar bi bi nga koy am mën na am jugewul ci sa liggéey donc yoon la nga cotiser pour participation léegi da ngay cotiser caisse cotiser IPRES da ngay cotiser IPRES mais aussi da ngay cotiser IPM IPM c'est pour les maladies non professionnelles maladie professionnelle caisse de sécurité sociale wala accident de travail moo ko jël caisse de sécurité sociale moo ko jël en charge mais bu dee maladie bi non professionnelle amul benn relation ak sa liggéey xool nañ ci arrêté bi nekk aussi dans ce cas comme caisse du la jël en charge cotiser loolu lañ la feneen IPM sa famille mën na feebar par exemple sa doom mën na feebar sa jabar mën na feebar IPM mën na leen jël en charge dans ce bi moo leen di jël en charge bu amee sa jabar fekk travail affilié doon moo corrigé foofu sa jabar feebar nga dem ci IPM bi mu jël ko en charge en fonction couverture bi cinquante pour cent ba quatre pour cent mu couvrir lu ci des nga montali ko. maintenant pour les employeurs entreprises yi ñoom dañoo jàpp ni IPM c' est pas obligatoire alors que c' est obligatoire su fekkee les délégués du personnel nga xamante ne ñooy représenté travailleurs ci entreprise yi voilà voilà les travailleurs employeur et leur dire wax ko ñu ko carrément ni ko IPM c'est obligatoire du leen ko war a IPM am na règle yu ñu teg ki nga xamante ni noonu la ñuy créer IPM institution de prévoyance maladie dinañ ci ñëw incha allah muy defal ko émission spécifique. mais les entreprises il faut que ñu xam ni si obligatoire entreprise yu bëri dañuy def assurance maladie da ngay dem si entreprise mu ni la man aw IPM mais am na assurance maladie assurance maladie ak IPM c'est pas la parce que loi bi assurance maladie. lu mu exiger mooy IPM kon monté leen IPM da ngay eh, afficher travailleur IPM wala nga créer IPM yow sa bopp yow chef d'entreprise nga créer sa bopp IPM nga afficher say travailleurs soo bu ko defee ñoom bu ñu amee maladie boo xam ne lu professionnel bokkul ak dara seen liggéey ñu dem foofu ñu jëlee seen doom bu feebaree mu dem foofu ñu jël par sur des risques yoo xamante ni da koy supporter da na tax revenu wala xaalis bi mu yor wàññeeku kon loi ko jàngal maintenant assurance maladie kenn tereewu mais employeur bu ko def ou bien chef d'entreprise bu ko def loolu da institution de prévoyance maladie ba pare. parce que institution de prévoyance maladie on a vu que ba quatre-vingts pour cent maintenant bu la neexee nga jël assurance maladie pour assurance complémentaire. maanaam les assurance bu couvrir ko pour tes travailleurs c' pas obligatoire mais bu fekkee yow chef d' entreprise yi y a des entreprises yoo xam bëgg jël en charge totalement leur employeur euh, leur travailleur bëgg nañ ko jël totalement en charge bu feebaree mais dafa leen assurance complémentaire mais xamal ne loi bi c'est-à-dire saa yu inspecteur de ñëwee foofu noonu moom bu ñëwee IPM bi la lay parce que c' est ce qui est obligatoire c' ce travailleur day cotiser benn partie employeur cotiser beneen partie cinquante cinquante ñu def seen cotisation bu ko defee en cas ñu mun koo jël en charge kon jàpp leen en somme que un travailleur bu liggéey ci secteur privé formel bi ak secteur privé bu mën a doon normal loolu waroon doon mais actuellement comme Sénégal secteur informel bi presque y a pas de cette couverture donte même si ministère du travail ñu ngi def ay jéego yu am solo ñu ngi préparer étendre couverture pour mu ñëw ci secteur informel bi en fonction des secteurs ñu ngi ci programme yooyu mais bu ñu la xamal ni travail bu ñu la sa contrat de travail ñu jëlee sa entreprise veiller à ce que ñu affilié la au régime de sécurité sociale ñett yi mooy régime de sécurité sociale yi nga xamante ne Sénégal moo fi nekk gum mooy caisse de sécurité sociale foofu employeur kese moo lay cotiser maanaam chef d'entreprise mooy cotiser cotisation seerul la caisse cotisation yëpp seerul moom moo koy cotiser moom kese beneen affiliation bi lañ la war a affilier IPRES pour retraite boobu nag dans ce cas da yaay cotiser benn parti bi employeur bi cotiser benn parti bi chef d'entreprise beneen affiliation muy affiliation IPM institution de prévoyance maladie yaay cotiser benn partie bi moom mu cotiser benn partie bi. caisse de sécurité sociale moo lay couvrir pour branche maternité branche prestation familiale dinañ ci ñëw lan mooy prestation familiale ak branche accident de travail maladie professionnelle pour bokk amee mu ngi mën la jël en charge IPRES moo lay jël en wala bu fekkee dem nga ba am nombre de points yàlla def aussi retraité go mais nga ñàkk sa bakkan nan lay jëlee en charge après pour verser pension boobu noonu sa famille say doom say survivants dinañ ci ñëw incha allah defal leen bi mooy IPM mooy en cas bu fekkee da ngaa mais li nga feebar du maladie professionnelle bokkul ak dara bokkul ak dara ak sa sa liggéeyukaay bokkul ak dara ak bi nga xamante ne ministre yi teg nañ ko fi nii feebar yi ñooy maladie professionnelle dans ce cas nga dem foofu ñu jël en charge soit yow sa doom wala sa jabar. voilà lii laa leen indi doon j'espère leen amal importance bu baax a baax a baax di leen jox dig daje incha allah ci fan yi di ñëw pour defal leen si yeneen émission mais bu soobee yàlla aussi dinañ am émission boo xamante ne si chaque institution la bii ci kees bi ci IPRES bii ci IPM jërë ngeen jëf